waaw loolu dëgg la mais ni nga koy waxee nii naan da ngaa dabaraate te ma woo la pour waxtaan ak yow. mais bul bul bul bul bul dugg ci ci dama lay ñaan bul dugg ci man maa lay ñaan parce que you don't know que going on barke yaa rasulullah yàlla bu ma gisanteeg yonent bi you don't know what's going on. loolu moom dégguma ko nag man dégguma anglais. ma ni xamuloo yow li xew. Hmm. comme xamoo li xew. ma lay ñaan mandul yàlla moo la ko sant. bul ah. dugg mukk ci gaare. non man de damaa bëgg rek mu rafet ndax dama ne ko binus maanaam loo wax loo wax Zeyna dang yow sa bopp nga ko wax wala loo wax Viviane ndax yéen bokk loolu laa ko doon wax di ko ko wax. di ko ko di ko ko conseil maanaam maanaam wax ji dama koo liir mu ñaaw torop ma daan ne xaaral ma lijjanti lii ndax wax lu koy fayee gën lu koy taal kat moo tax ma woola mais du ay débarakaat yooyu li nga waaw na la ci sunu borom fay yiw parce que da ngay wax lu ak waaw kay lool de moo waaw loolu de dama wala naa la <laughs> uh-huh. non non comprendre naa la comprendre naa la mais mais boo ne maa da ngaa mën a wax mel ne damaa ñëw pour wax leneen xam nga li tax xam hmm. dama ne la man français la làkk dama ne la y a jamais fumée sans feu lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole déggoo olof de defe naa ah. déggoo ma de bu ngeen gisatee mbir am jël leen tuuti recul même bu dee deux secondes ngeen ne lu waral lii parce que loo gis am na lu ko waral. non mais man damaa mus a gis maanaam bu fi Viviane bindee wala mu wax dara wala mu kii loolu mooy. sama wa waaw waaw waaw waaw xam nga tey jii. tey jii dama ne la léegi nii man kay li ma la wax tontu naa la ci lépp nag loo dégg dama ne la. Hmm. tey jii ñun ba quatre heures du matin on nous envoie des messages ba yow bi ci mujj sa tur lañ ci tudd xam nga man waaye diwuma. yow ba pare yow Viviane am na trophée ñëw fële si wóor waxoo ko sax rafet ñëpp génn nañ wax lu rafet ci trophée bi dégguma la ci gisuma la ci lu waral loolu. yaa ma moom. waaw non dama lay wax maanaam lu waral loolu. li tax non dama ne ndax yow yaa moom. non moom moom. waxul léegi tax ma ne dinaa la woo waxtaan ak yow parce que moom it Viviane du moroomam ba muy jël ay kàddu yu ñaaw di ko bind léew liir nga lim xam nga euh, Addo. xam nga euh, olof dafa naan lu yëngu rek li ko yëngal moo ko ëpp doole. waaw. jamais fumée sans feu. dëgg la. vrai xam nga nen pour nga defar ko faaw nga toj ko soo ko tojul doo mun def omelette. Mhm. dafa loo xam ne mën nañ koo waxtaane am na loo xam ne mënuñu ko waxtaane. li bind dëkk ko ci ñun ci ay message privé suba ngoon guddeeg bëccëg ba trois heures quatre heures du matin mhm. ëpp naa wone ëpp naa wax mais loolu kan moo koy bind attends attends attends rek attends xam nga man réewuma te juruma ko réew mhm. ñàkkuma teggin te juruma ko ñàkk teggin ñàkkuma orma mañ jur ku ñàkk orma. Viviane da doon sëy ak Bouba. waaw. yàlla weddi. papa Philippe sama kër la juddoo. Mm-hmm. Californie ak Oakland. Mm-hmm. mi ngi juddu jour anniversaire sama doom Youssou le mm-hmm. onze janvier. ba ñuy césarienne damay dugg ci détail pour nga comprendre ba ñuy césarienne Viviane ndeyam toogul baayam toogul sama ndey toogul sama baay toogul buuba toogul man la ko buuba indil mu am sept mois. Mm-hmm. ma téye ko sama kër ba mu am doom mm-hmm. ma ngénte ko ki ma seyal nii tey di famille laayeen ñooñu ñu tudd papa Philippe kon lu ñaaw xaju fi mm-hmm. tey ji papa Philippe buy tàkk jabar kenn du taxaw ay bàjjanam ñooy taxaw dëgg la Zeyna buñ koy tàkk kenn du taxaw ay bàjjanam ñooy taxaw dëgg la man xawma lu bon duma ko def duma ko wax dëgg la yow am